dolle jaar as. kontaan tey ñaata bi nga encaissé premier mi-temps bi. encaissé naa ñett de. <laughs> léegi lan la ñuy wax Pape Matar Sarr non di ko ñaanal rek di ko encouragé vraiment comme ni ñu koy ni ko Sénégalais bi yéene quoi. xale la te vraiment ñun ñëpp ay papaam la ñu moo tax affaire bi lii mooy sport man aujourd'hui y a des gens ça fait 20 ans on partageait les mêmes lits en équipe nationale tey aujourd'hui on se retrouve là c'est ça l'esport, réalité football mooy lii sport lii sport rek moo ko mën man ça fait presque une day ay année taxaw ma sax ci camp góolu mais quand bi ma ñëwee j'ai j'ai envie parce que dama gis sama ñoo xam ni samay partenaire la ñu woon adversaire la ñu woon nga ñëw dayee ñoom vraiment mbégte la quoi am mbégte trop di souhaiter di ñaanal aussi